ñom euh, bëgg neen euh, porter plainte si ñenn ñi nga xamni itam japp nañu leen daal di accuser sans pour autant li nga xam que moo des preuves euh, si directoire li nga xam nekk moo parti bi n'est-ce pas peut-être parti bi sax existé tout mais seen directoire ñom autour de coalition jomay ak li nga xam nekk moo Sonko exactement enfin loolu tamit est-ce que xalaatoo ñu war ko daal di war mëna li nga xam nekk peut-être régler entre eux taille fi daal di jëlaat yeneen tournure yo xamni itam peut-être dinañu xaw a jaaxal gis nga mbir moomu sëñ Fallou. na bëgg Pastef yóbbu ko ci yoon. il faut que ñu tay mais Pastef c'est normal ñu porter plainte du porter plainte mo xew fani <laughs> wala xewul porter plainte mo xew fani hmm. oui porter plainte mo mo xew fani ñom tamit mën nañu porter plainte ñu yoon ne ñom ñoo nekk ci ginaaw lool en tout cas patriote yi loolu ñu koy exiger. non mën nañu porter plainte. parce que dëkk bi kenn momuko ko bi. Euh, patriote yi ñoom ñu koy exiger. dama ne dëkk bi kenn momuko ko. Hmm. japp ni daf la togn mën nga koy yobu ci yoon. c'est normal parce que kenn momul dëkk bi. Sénégal ñun ñëpp ko mom kenn momuko même le président de la République bo xamante ne sax c'est lui qui signe à notre nom nous les Sénégalais momul Sénégal momul dëkk bi.

bien sûr nañu ko ci c'est ça la réalité parce que wa Pastef ñaata ñaata fois la page Facebook ñu né outrage à un la preuve récente c'est Ngagne de Touré outrage à un magistrat outrage à un lu ndaw rek wa Pastef bu ñu ni que Pastef nga bok oh. dañ lay ci parce que dañu outrage maintenant ñu taxaw buntu 7TV di wax c'est euh, pas outrage le taxaw 7TV di wax lu len worul di ko ci parti c'est pas des mensonges faux et usage de faux parce que li ngay yëkëti ni c'est du faux c'est du faux Moi, la parti Pastef mën nañu porter plainte parce que porter plainte Moi xew fanni. mais lolu moi am mo xew Je suis nañu porter plainte encore une fois man j'ai un sentiment c'est-à-dire que une fois, man dama am luma ma dama am luma ma trop en tant que journaliste ma dis ay samay samay confrères journaliste dem buntu 7TV di wax lo xamantene éthique ak déontologie euh, peut-être mais c'est pas ça, c'est bi. Euh, journaliste wax da ngay euh, da ngay da ngay basé ci lu wor gis nga bu la ils n'ont pas des mots. ils n'ont pas des mots. non c'est réaction comprendre Arfan. sot sot wax dul sot wax lu journaliste ak lo lu mu metti métti lu mu da ngay reste dans ta directive dans ton chemin nga bañ a wàcc sa yoon loolu moy journaliste mais journaliste simple agression ngay taxaw di wax ni que tentative d'assassinat la non mais arrêtez il faut arrêter journaliste du c'est-à-dire que la la fougue la fougue warul les journaliste parce que wéyi incidence yi incidence bi amna, na koy ñaawlu léegi yow am nga nakar xol déjà bay taxaw devant les caméras les micro di wax loo xam ne parce que da nga am nakar xol di wax loo xamante ne wóoru la loolu du loolu du liggéey journaliste un politicien moo war a wax loolu ñu comprendre man li ma lay wax nii li ma xam la. mais euh, mais politicien bu ko waxee. wala wala wala keneen de la famille de Maïmouna Ndour fay koo xamante ne moom jàngale wuñu ko ci école de journaliste ci famille simple famille Maïmouna Ndour fay la bokk. am na droit wax César de mots wala benn politicien am na droit wax César de mots même les journalistes qui sont ñu nekk biir 7TV amuñu droit wax ay mots yoo xamante de propos déplacés bay tudd ni que ñu nekk si ginnaaw euh, euh, Maïmouna du Faye ñu ko agressé ñun xam nañu fan la ñu fan la bokk même journaliste bu nekk biir 7TV. amul droit tu kaddu yi mel non mais benen journaliste bu jógee feneen dafa ñëw pour défendre la cause du journaliste muy taxaw di wax ay propos déplacés ni wëy tentative d'assassinat la c'est pas digne d'être journaliste c'est indigne journaliste ak lu mu metti metti ak nu mu metti metti war nga war nga conserver toujours ah war nga conserver toujours luñ la jangal éthique ak déontologie ah nga mm. maîtriser

lina nga xam nekk les conclusions du dialogue mu dadi wuro war saisir li nga le conseil constitutionnel alors le conseil constitutionnel qui sont les 16 sages dina leen daal saisir peut-être au plus tard tay wuro lina nga xam nekk suba inshallah ñu fassé yéene di taxaw si nu mu gën yato. si lina nga xam nekk ay ponk yi nga xamni tam gëna gën di euh, par rapport ak les conclusions du euh, dialogue national alors dialogue bi nag fa daal di conclure très spectateur yi jàpp leen itam fu mu toll nii nag euh, élection bëgg nañ ko amal le deux waye itam bëgg nañ daal di wéyal li nga xam le

Si nous ñu garder le même processus il faut que nous ko pour le 2 juin au cas échéant on risque de reprendre le processus par l'Assemblée nationale par le président de l'Assemblée nationale parce que euh, un gouvernement de transition il faut reprendre que le processus Lorsque nous avons dit que peut-être que le conseil constitutionnel Si le processus daal il est obligé pour nous d'accord la date du 2 parce que euh, reprendre le processus il discréditer exactement le travail tant abattu fa conseil constitutionnel enfin comment le comprendre parce que de plus en plus il y a eu euh, des répercussions il y a eu des rebondissements dans ce sens alors aujourd'hui euh, président Macky Sall mais est-ce que concrètement bëgg na dem xamuñu mais quand même cadre euh, yu Sidiki Kaba daal di yëkki nak la ko war comprendre. Sidiki Kaba xalaatam la joxe en tant que membre responsable politique de Benno Bokk Yakar teg hypothèse en tant que membre responsable politique de Benno Bokk Yakar mo joxe xalaatam Sidiki Kaba Sidiki Kaba n'est pas un juge constitutionnel. Hmm. il n'est pas expert électoral. Hmm. maintenant nan lay tok di wax ni que. Si nous voulons reprendre le processus électoral moi, Madame Macky Sall continue de filer ba mm. juin mm. quelqu'un qui il n'est pas juge constitutionnel. Mm. il n'est pas au conseil constitutionnel. il n'est pas un expert électoral. il occupe un poste politique ministériel. boo xamante ne lañ ko Kaba il est quoi pour dire que oui, vous euh, euh, faites euh, remplacer Macky Sall donc ce qui veut dire que le processus est recommencé. recommencer. Macky Sall bu continuer may nañ ko les jours même Sidi Kaba il n'est pas un juge constitutionnel. il n'est pas un expert électoral Sidi Kaba war na que même Macky Sall Si ko bàyyee mu le 2 juin c'est un acte anticonstitutionnel. parce qu'il est en fin de mission il est en fin de mandat.

du droit c'est les lacunes du droit actuellement au Sénégal suis un mandat président mm. sans élection non seulement sans élection mm. et aussi amounou, un président qui doit le succéder c'est un vide juridique nous jurisprudence lu mel au Sénégal li fi xew nag da koy xewal ndax mu jurisprudence ak li fi war a xew. un précédent on appelle avant d'être jurisprudence c'est d'abord un précédent. li ñuy dunduni ça va créer un précédent dangereux. dans un pays dans ça va créer un précédent dangereux. Hmm. xam nga Sidiki Kaba toog naam continuer ba le deux moo arranger parce que selon c'est dit que ñu remplacer Macky on va recommencer à zéro c'est faux amul parce que aucun texte ne l'a prévu benn texte waxul ni Macky Sall war na continuer ba le 2 benn texte waxul ni Macky Sall bu continuer ba le 2 moy manam processus processus électoral bi day continuer mais bu ñu remplacer Macky Sall processus bi day recommencer benn texte waxuko. il faut que nous ñu arrêter di bluffer askan il faut que ñu arrêter di comment imposer la pensée.

ñom ñoo ñu a jox ay choix ñu ñuy wara a mais ñi japp ni moom dafa nek di dankaful le conseil constitutionnel. dama ne parce que le conseil constitutionnel. est euh, au-dessus euh, de Sidiki euh, Kaba indirectement dama indirectement. Sidiki Kaba mënul dankaful conseil constitutionnel parce que le conseil constitutionnel est au-dessus de Sidiki Kaba. Le conseil constitutionnel est au-dessus de Sidiki Kaba. D'où la pertinence Non, arrêtez quand même. Il faut, il faut, il faut, arrêter. Mais d'où la pertinence de ça Damane, Sidiki Kaba, le conseil constitutionnel est au-dessus de lui. lii moom benn post nomination la yor bu ministère tey suñu xëyee mën nañu ko dàq andi keneen dañ koy dàq andi keneen